Salut les amis des Sport TV et de Baba Show. Merci encore Gad, la confiance renouvelée. Merci de des likes, merci de des abonnés. Merci également de baisser les commentaires. Un plaisir au nouveau. renouvelé chaque fois de partager des informations inbox sénégalais. Fait pour les Montenegro. 14 régions du Sénégal ruq-ruqaat yi gox-goxaat yi ñu ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci lal hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yi am na suñu borom fëgg seen bopp ñëwee rek jàmm ñi nekk ci kaso yi ngeen xam ne aussi gars yi erreur judiciaire ak génne li ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i jaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xar leen laajane fi ndaw si gars yi te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie de Baba Show et des TV. L'actualité en continue guerre. de début de Wartami, Ronaldinho, Midabi, clash. Nous avons Brésil, Rafinha, Digo, Tontu, le père de euh, Pamba qui se signale, la Roja espagnole à Donc la mal record. Pendant ce temps, qui a de l'air. le joueur du Milan AC, est définitivement à 100% équipe de Atalanta. Bergam, donc un avons qui a 25 à 30 millions d'euros. Qui ont également différents Torres ou à Newcastle, nous avons insisté pour recruter l'attaquant espagnol donc au FC Barcelone qui dit Ferran euh, Torres qui nga xam dans le actuellement Barça mom ñu fa mën a sen rek ko def Lionel Messi encore auteur d'un match stratosphérique triplé de la Pulga ak Argentine. Argentine Argentine ñoom ñoo dóor euh, Guatemala mais Argentine ñom parle nañ pour Copa América bi et un trophée ñom fassé ñu ko maye. benn yoon donc ñoom kafuñu réewuñu loolu nag nañ si kanam pendant ce temps Llorente ah di attaquant espagnol moom nag nee na bu kenn comparé Lamine Yamal ak Lionel Messi si ba ñu amee même âge ndax nee na lii Lamine Yamal di def ci âge am bii nii nii Lionel Messi daanu ko woon def donc actuellement waruñu leen sax comparé ci par rapport ak âge bi ñu donc actuellement il est en avance par rapport au dynamisme bi ñu sukkandiku âge en matière de statistiques et en matière de performance bien évidemment donc le Yamal hein, actuellement bat il est devenu le plus jeune joueur d'Europe à jouer donc la Coupe d'Europe hein le joueur marocain d'origine du jouer pour l'Espagne. ah Mongok, star du FC Barcelone notamment avec Hans Dieter l'Espagne qui se lance bien Espagne la Roja donc Modou 3 buts à 0 bien évidemment match mais xamuñu loolu moo dal Croatie wala bok Espagne ñoo ay en tout cas dal 3 bi à 0 lañ leen dóor tey jii ki nga xam ne donc Fabien Luis également il a été phénoménal équipe qui ngi nii yaa ah, ko Nico Williams Morata Lamine Yamal ñoo nekk si Pedri Fabien Luis Rodrigo si milieu terrain bi Nacho le normand mooy le français d'origine Carvajal Cucurella ak Unai Simon ñoo nekkoon ci défense bi donc Fabien Ruiz le joueur brésilien bi nga xam ne euh, là le joueur espagnol du Paris Saint-Germain plutôt je voulais dire le joueur du Paris Saint-Germain bi nga xam ne donc gars yi il a été donc énorme tey jii nii moom la ñu def mel ni de match dugal ba pare def match bu rëy rëy kii nag ngeen xam di Adriano Adriano moom nag ah, dellu si na ci di la dawee ah, Inter ndax nee na benn benn moment gars pression bi la àttan woon parce que moom nee dafa yàggoon a tàmm temps booy football mais football moom foo la ko defoon mais affaire nekkee lu sérieux teg pression bi et tout papa gaañu et tout mu dellu Brésil benn moment Morati woo ko mu ne ko saa yi bàyyi ma toog fii fu ne mënatu ma ñëw président Inter bi commencé bàyyi ko fa nee lu nekk nag dégg na ko mais garaawul pendant ce temps Ronaldinho nag moo def déclaration nee na gars yi dootuma seetaan Brésil mu ne en tout cas Brésil moom ah, ci Copa America bi du ma leen seetaan benn yoon parce que nee na Brésil ma gis ni booy amuñu mun a mun Brésil football amatu fa yaa nga mu ne ay joueurs moyens ñoo fa nekk ba pare dirigeant yi liggéey bi ñu war a def defuñu ko donc aujourd'hui nee na voilà Brésil mérité wuñu sax am ñoo xam ne joueurs yoo xam mérité wuñu sax sol maillot Brésil loolu nag tax na benn booyu xamante yi ah, booyu xamante yi mel ne ay Rafinha di ko tontu ne waaw dégg naa ki nga xam ne nag mooy donc Ronaldinho di wax waaye moom sax day déggoon naa temps dafa ñaan Vinicius ay billets pour ñëw seetaan suñu match donc man xaw ma li xew donc loolu mooy wax xama ni ah, étant donné que yow rafiña gañoo dara tous gañoo dara gañoo ko des joueurs comme Ronaldinho Ronaldo Messi ah Ronaldo phénoménaux dañu nekk joueurs yoo xam ne ils ont marqué l'histoire du football ñooñu dañu war a jox cër et tout même si fekkee ne Ronaldinho amul hygiène de vie moo tax eggul fee mais li mu gagné nii booy Rafinha yi gagné wuñ ko et il a raison il a gagné la coupe du monde avec le Brésil ñoom gagné wuñ ko lii nag di waa Teungueth FC Cheikh Gueye muy seen ex entraîneur dafa jóge waxoon naa ko depuis bañ a éliminé coupe du Sénégal ak kàddu yu ñagas yi nga xam supporter yi ko def la jëloon décision moom nag day dem su ne nag parmi les favoris ñi ngi doon tudd ki nga xam mooy donc Malick Daf mi nga xam ne il est en fin de contrat avec le Jaraaf de Dakar le capitaine donc l'entraîneur du club de la Médina donc Malik Daf bokk na favori de il y a également Abdoulaye sek Abdoulaye ancien entraîneur de la Pikine de l'USO cest jamono yor petite catégorie pour euh, la génération foot mon nak beaucoup de favori pour Dali et succéder ak ki nga xam ne la mooy donc Cheikh Gueye mais ki ñuy gën a tudd jamono ji selon record sax moom mooy favori bi du keneen ku dul le père de Pape Matar Diatar Boy Thiès mun football mon ami Sidat Sarr hein, donc l'entraîneur de Sonacos nga xam ne euh, saison bu baax a baax la def ak Sonacos moom daal la ñu nemmeeku ne xelmati ko ne daal jamono ji boo ma tudd moom moo nar a nekk euh, remplaçant bu Cheikh Gueye loolu nag c'est non yéen kaay record gars yi li mu nekkoon information yi ngeen bëggoon jox hein, c'est toujours un plaisir de vous servir woy leen di like hein, woy leen di abonné on avance ensemble dans la magie de Baba et des pour TV bu le sur le le